asalaamaaleykum sunu mbokk yi dal leen jàmm ci CAN 2019 bi ñoo ngi ci huitième de finale bi vendredi lañ ko jàpp di nga am Maroc Bénin loolu 16h pile la di nga am Angola Sénégal loolu 19h pile gi di am Nigéria Cameroun loolu 16h pile am Égypte Afrique du Sud loolu 19h pile gi di am Madagascar République démocratique bu Congo loolu 16h pile am Algérie Guinée loolu 19h lundi di nga am Mali Côte d'Ivoire loolu 16 heures pile la di nga am Ghana Tunisie loolu 19 heures pile la ñu jiyee foofu dem si classement bi groupe A bi Égypte mooy jël P Angola topp si République démocratique Congo Zimbabwe groupe B bi Madagascar mooy jël P Nigéria topp si Guinée Burundi groupe C bi Algérie mooy P Sénégal topp si Kayak Tanzanie groupe D bi Maroc mooy P Côte d'Ivoire Afrique du Sud Namibie groupe E Mali mooy P Tunisie topp si Angola Mauritanie groupe F Ghana